waaw jërëjëf ba tey ñu ngi ci euh, màggalu Cheikhul Khadim bi kii ñu toogal nag taxawal mooy ajaratu kenn tage di euh, jigéenu Cheikh tage mën naa wax ni borom këru muumi ajaratu ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Mhm. di leen ziar. Mhm. bëggoon nañ xam nag sa taxawaay. ci magal gi fi ci kër ajratu mumi Kébé. Ah, suma taxaway si magal gi moy sante ak gërëm di ñaan yalla mumi sama soxna la ndax sama mag bu goor sëñ ablay mo koy denc ma dika ñaanal yalla ndax ñun suñu dara manké wul muy barki demb ñun defe nañu sax barki demb moy magal gi sunu dara manké wul suñu neek lepp day mat di ko ñaanal yalla lu man ren yalla man dewe lu ko ëpp yalla na yalla yagal taxawayam yàlla bu mu rëccu lépp lu mu doon def ci àdduna yàlla bu mu ko rëccu yàlla na ko yàlla fay ci àdduna fey ko ko àllaaxira yàlla na yeex ajaratu kenn mën nga ñu wax ci Cheikh Ablaye Kébé mooy kan sëñ Ablaye maa ngi moom ñoo bokk ndey ak baay muy nit ku baax moom lépp lu mu def fii rek ci ay mbokkam la ko jëkke gërëm nañ ko sant nañ ko benn mbokkam benn mbokkam rek ginnaawala ko lépp lu mu def ci doomu aadama rek ci ay mbokkam la ko jëkke di yàlla yàlla yàlla guddal aw fanam wëral cëram barkel ak njabootam yaay la bayiko ko si ñu sokkorloo ni asaman ak suuf gis nga sama xarit yaangi ni fuma fu neex lay aw fu neex lay dugg fu neex lay and ak ñom amuñu fi sens interdit kay ñaanal yalla lepp luma man reen dewel yalla man dewel ko ajeratu ken allo Dakar ñeel na la wax na la jërëjëf ci li nga xamanteni si moy màggalub Cheikhul Khadim gi ñu lay jox dig dajja ba benen yoon inshallah salli ala allazi bihi tujibu waqbal bihi nazmiya